ñoo xamante ne ci làmb danga koy liggéey mystique yi ñuy woote ci làmb prince loolu est-ce que am na gàllaaj yi ngay gis mbër yi di ko yor ñu ci bari dañ naa ay folklore la dañ koy def mais mais dafa am gàllaaj làmb hmm. waaw làmb la de gis na combat làmb mystique am dafa grave mais dafa gën a ëpp dolli ci ci ci fétiche parce que fétiche mooy joni joni hmm. bu neex yow dinaa jàpp bu naxar yow dinaa jàpp. mystique lambo c' est pas n' importe moo mun na liggéey ci lamb de. Hmm. mais ku mun na defar mbër yi sangara sangaat nga xam kooku jàmbaar la nga xam kooku xeexkat la comme ku ngande atale wu ma. mus nga ngémb mbër muy dem làmb nga wax ko ndam ji nii lay demee ndam bi nii lay ñëwee. mais sama Lada Gueye man maa ko yóbbu signature bi man di moom da nga am ndam. man wax ko ci réseau euh, réseaux sociaux yëpp. bi muy bëre kan moom an Eumeu Sène. Hmm. man di moom yow yaa am ndam. dama ko wax ko ci ci DSS. Hmm. ci site internet ñoom dañu ko jëre. Hmm. Eumeu Sène euh, moo am dam euh, Alim Sène de. damaa di moom da nga am ndam. man gis na sa victoire da nga am ndam. mu defar ko asanga defar ko yëpp. et ça def ko doo mu daan nest pas. ok. match parara hmm. dama koo di moom da nga am dam jour combat bi la matin man dem defar ko lu ma war a defar ko. Hmm, hmm. combat boobu daa yàgg dara mu jàpp waaju doo ko mu daan. waa comme bu ñëw ci lambo. and encore may ñaanal Balla Gaye pour mu am dam mais pour ci kanam ci combat moom Balla Gaye and Boy Niang Boy Balla Gaye Boy Niang. dina ko gaañ. yow loolu sax combat boobu sax du yàgg du jërë bu bëri. combat bu ñëwagul nga ni Balla Gaye Boy Niang. Balla su ñoom ñaari bëri cinquante fois bala Gaye dina ko daanal cinquante fois bu leer laa la wax. Prince loolu da ngaa dëkk géejawaay faral. non non loolu du question géejawaay loolu question xam-xam am mystique am vision bu leer. ayca kon ñëwal ci Balla Gaye Bombardier moo jiitu. Balla Gaye Bombardier Balla Gaye dinaa daanu Bombardier. déet Prince. dëgg nga ma bu baax. damaa jël ndokk ci sama géeme combat bi lu des bëriwutu. Balla Gaye dina daan Bombardier. vaar bi ñeen dina ko dégg. presque eh, di nga dem vaar de. yow xanaa man dama ragal vaar. man bala man wax dama ko dama ko xoor bu baax. nan la ko Balla Gaye di daane. de victoire rek. victoire victoire la. lu mu daana sama yan na ko ci. lu may wax yow mooy victoire. Siteu Papa Sow. mooy combat boo xamante ni. mais combat boo combat bi gën a ah, neex. non diggante Siteu ak Papa Sow kenn woo ma pour xool combat bi man bokkuma ci liggéey lamb boobu. comme waruma wax dara ci combat boobu. mais gis nga kii daan. loolu may na expliquer combat boo xamante bokkuma ci duma ko seet. amru man jëri. Hmm. kon combat Balla Gaye Bombardier da ngay liggéey. moo tax ah, bàyyi ko mu seet bàyyi ko mu seet jërë ko jërë lu ma wax yoo rek leer na <laughs> léegi Siteu ak Papa Sow ci kenn moo tax doo ci wax. voilà doo ma ci wax sama yan nekk ci. mais comme ba Modou Lo. Hmm. Ama Baldé. Ama Baldé dana am dam bu sedd guy. Modou ak Ama Baldé. léegi mu nekk roi des arènes. léegi Ama Baldé jërë roi des arènes. ah prince. Euh, presse daa mel ni wax ji féete na boor parce que damaa gis ni wane nga ni mbër yi nga ñaanal dañuy am ndam ndax Ama Balde ak Géejawaay benn bopp la. Ah. Ama Balde ak Balla Gaye benn bopp la. lu des bëri mu tuuti Balla Gaye day daan Eumeu seen Junior day bëri kalmandoor xam nga Calme Ndour. loolu ma gis na ba boo xamante ma ci. Ah. du ma ko seet. Eumeu Sène Junior Géejawaay la dëkk wala xamoo. mais su moom dëkk Géejawaay sax seet ma ko defar ma ko dara mënu ma wax moom moo gagné. mais lu ma laaj sama tuur yi lu ma laaj sama tuur moo gën a am important ci man. lu ma laaj sama tuur moo gën a nekk important mais du ma nekk tey man nekk di seet lamb boo xamante man bokkuma ci. xam nga loolu euh, naxakaati bu bëri bu nekk ci internet tey. di fen déedéet ñoom dinaa def li ñoom gis na li ñoom gisoo dara après ñoom di dañoo dóomoon dañoo dóob combat bi. comme Kounkandé wax woon. xam nga Koukandé dafa waxoon ci combat Lac de Guiers andi Eumeu Sène di Eumeu Sène dina duma Lac hmm. bi tranché ko du yàgg. waaw mais après. ba heure Lac de gaañ naa Eumeu Sène ba pare mu ñëwaat ci. day dañoo dóob combat bi beneen féticheur moo ko moo dóob combat bi ko man mii wax. même <laughs> euh, année dañoo dóob dóob combat bi parce que dafa voyage woon yóbbaale pouvoir bi. <laughs> Koungheul moo neex. <laughs> boy bi loolu kay doom la neex. Oh, boy bi boy bi boy bi moo neex ci waa boppam. mais loolu dafa fees <laughs> mais ñu ñëw ci làmb actuellement ba tey ban mbër nga jàpp ci génération bi nga gis ni moo ci ëpp mystique prince. ah loolu kenn du ko wax parce que ku nekk mun na tey mystique am des. Mm-hmm. moromam raw ko suba. Mm-hmm. est-ce que yaay comprend mm-hmm. comme nit yi léegi munu gis yow léegi di yow munuma dara xamoo fa sa tànk nekk. amu mbëri bu ëpp ci mystique de. parce que mbëri bu ci nekk mun na dem Nigeria suba. mbëri bu ci nekk mun na dem Inde subo ku nekk am xam-xam moom am. mais fu mu ton ni a ah, Balla am na am na am na bagage de. Hmm, am na ngem hmm. waa jéejewaay léegi ñoom préparé na de mbëri jéejewaay yëpp am na galaaj hmm. fu mu toll nii du da napp yeneen mbëri napp ma de ama ba am na galaaj de ama jàmbaar la de yàlla baax na combat bu neex la de